bi nga xam ni am nañu yaakaar ni que incha ci juróomi at yi ñu ko fal mbébétu département Podor yi yëpp incha allah dina ko faj parce que am na li nga xam ni bëgg nañ ko mu di ci ci wàllu bac fii bu jëm Mauritanie mu di ci wàllu désenclavement bi mu di ci wàllu emploi des jeunes mu di ci wàllu financement pour les femmes loolu yëpp nit ku la jox ndékki bu la déggee añ nga gëm ko bon ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla na yàlla yeggali yéeneem ci Sénégal ak yéeneem ci département Podor maa ngi waxanteeg jeunesse su Podor na ngeen jublu ci seen jàng am ay diplôme pour que suba departement Podor mun a am ay cadres yi nga xam ne daañu mun passer la à tous les postes de responsabilité lenn itam maa ngi koy wax les jeunes lépp li nga xam ne mun nañ leen ko dimbali ci affaire emploi daañu leen ko dimbali parce que nit nga jox ko nga won ko nu mu nappee mooy gën bés bu nekk nga jox ko jën jigéen ñi itam bu soobee yàlla ak jënt bi daañ leen dimbale ci ay financement am na lu ñu door daañ ko yokk dans tout le département de Podor